xoolal Masako xoolal Masako na mu mel mbër lay saf ma Sakho gi ngay saf Sakho ngay tëjee sar bi xale nga ba ngoog eh, Sakho ngoog eh waay làmb demoon na lii Habib ba dox na ci diggante Pokola Baldé waa Pakane numéro 2 Papa Kane numéro 2 Pokola Baldé Zarko dafa toog dañuy seetaan mu yàq suñu lamb Zarko Pokola Baldé Papa Kane numéro 2 boo ma teelul si Baldé dina dugg ci digg géew bi teel ma sul Baldé Zarko nga yëngale sàmb Pokola Baldé Papa Kane numéro 2 Babacar numéro 2 Pokola Baldé Pokola dem na ardo dellu si mu ñëw ñuy xeex bu métti mu dem ardo dellu si waat cokkaas na léegi moom Pokola bu doon may moom dafay wàññi xeex bi ndax bu sa yaram tàngee nga sañewaat Pokola daa wóor a bëre ki nga xamante ne nii mooy Babacar xeex na xeex bi arrangé wu ko waaye Babacar fa mu teg loxoom foofu la bu mu ko teggi Pokola Babacar jël na ko jël ba baax na da koy tëj dina ci génn di ci génn daaw day daanu day daanu day daanu gàccee ko gàccee daan faj na ko waaw waaw jël tànk ba tëj ko gàccee doo gàccee daan faj na ko. lamba gi noonu